waaye ñu ngi fi euh, ànd ak le président Momadou Ndiaye ji ne nekk responsable politique APR fii si diwaanu commune bu Wack Ngouna monsieur Modou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay tey da nga dagg yëpp sa ittee ñu ngi fekk si résultat fii examen yi. waaw gis nga parce que ñun euh, dañoo bokk ci dëkk bi euh, lépp loo xam ne activité la bu ñeel dëkk bi wala moo ñeel jeunesse bi ñun dañ ciy dugal sunu loxo wala dañ ciy fekke wala dañ ci teew tey ñu ñëwoon ci CM bi pour chiffre li nga xam ne mooy résultat yi BFM bi Euh, mais ñu gis si benn euh, réussite bu am solo boo xamante ni euh, élèves yi nañ ko trop ñi leen encouragé di leen félicité te di leen wax ne nii la parce que nit lu mu nekk lu ne da ciy bàyyi xel nit lu mu nekk da koy jaral parce que tamit jàng tax laa nga dem ci école di caaxaan ba bu résultat yi ñëwee nga am lu bon loolu ku ne war na ko moytu mais gis nañ fii ci waa Koungheul am na résultat bu baax ci BFEM yi loolu dañ ciy sant élèves yëpp di ci sant professeurs yi nga xam ne ñoo encadré élèves yi ba tey li war a am ñu am ko loolu maa très bien di leen wax na leen nañ fi ñu teg seen tànk foofu la ah, di masu tamit ñi nga xam ne ñoo ñàkk te di leen wax ne euh, ba déwén incha allah parce que xëcc bu dëggu dikk wala mu yendoo teeng bu kenn découragé bu du tey di suba lii la amoon lu may sànni ci kàddu di féliciter Wack Wack TV euh, di leen ñaanal yàlla parce que tamit am ngeen solo ci dëkk bi parce que yéen a ngi jàllale information yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy xaar te mu mënuñ ko gis yéen a ngi koy jàllale di ko yëg fa mu war yegg kon mu mën lu ñaanal leen fan ak wér te di wax rek au tout le moment nañ leen jàppale parce que jàppale leen mooy jàppale dëkk bi parce que lii bu ñu taxawee ba Dakaaru Ndiaye di ko suivre à cause ak yéen kon tey ku leen xeeb leen man de xeebu ma leen te nee naa leen yéene bi ma amoon ci yéen démb tey laa ko mën a am maa ngi seen ginnaaw tey maa ngi seen ginnaaw suba lépp lu ñu yàlla sédd muy ay moyens dinañ ci fexe ba jàppale Wack TV mu jëm ci kanam incha allah dinañ fexe ut place fii ci Wack Ngouna benn place boo xam ne dinañ ko defar ba mu baax inauguré ko def ci Wack TV mu nekk seen sées nga xam ne tey ëllëg képp ko bëgg def émission da fekk foofu noonu ci salon bu luxe jël ngeen jël ay vidéo jàll information bépp xibaar ngeen di tas loolu incha allah am na yéene bi te dañu ko def ñu ngi leen sant di leen gërëm merci Ousmane jërë ngeen